niveau du Haut Conseil des collectivités territoriales sunu mag Amadou Fall Gaye ñu ràññee ci aussi sunu mag doomu Kajoor doomu Kébémer sunu xarit conseil spécial de monsieur le premier ministre Assane Mbaye mu ngi ci délégation ràññee ci sunu jigéen président conseil d'administration doomu Thiès donc doomu Tivaouane doomu Kébémer Seynabou Ndiéguène mun naa si boole suma mag suma xarit Baye Fallou président de la République le ministre Cheikh Kanté ah, waaw ministre auprès du président de la République en charge du plan Sénégal émergent boole ci aussi suma mag suma sëriñ sëriñ Habib Sakho nga xam ne kenn la ci man kenn la ci président de la République mbooloo mi xaritam si doomu ndeyam si mbokkam le député maire Aybel Gningue ñu ngi am nag mbégte ñëw fii ci turu président de la république di nuyu nag kilifa yi fi toog yëpp di nuyu kilifa aada yi am nañu kajoor dëkk cosaan la di nuyu chef village yi di nuyu notable yi di nuyu délégué de quartier yi di nuyu maire yi ma ci ràññee suma xarit suma sëriñ le maire de Pekes moom Thierno Mbacké di ci aussi le maire de Tivaouane le directeur général de l'IPRES Diagne Sy ci ràññee aussi euh, ñi nga xam ne ñoo nekk ci institution wu Sénégal yëpp conseil économique et social environnemental au conseil des collectivités territoriales di ci teg aussi sunu xarit yi sunu mbokk yi sunu wëllëre yi ñi nga xam ne tey kenn mënul liggéey Sénégal te jaaruloo ci assemblée nationale. Mhm. mooy les parlementaires de l' assemblée nationale les députés yi nga xam ne toog nañu fi ku ne ma xam la am fu ma jaar ak yow. mu nga jaar sa tur jaar sa tam jaar sa fonction. mais xam-xam bi tax du ma leen mën a ràññee distinguer leen individuellement. mais xam ngeen ne bëgg naa leen xam ngeen ne am na fu ma leen teg. Mhm. xam ngeen ne aussi wax dëgg yàlla seen cër ak seen taxawaay ci Sénégal. jaadu woon na tey ñu lim seen tur kenn ku nekk toog parce que ñun nii nekk ci exécutif nekk ci président de la république xam nañu njëriñu député ci dëkk malheureusement nag lu ñu dul waxtaanee lu bari la ba nga xam ne penc mi ñu bari ñu leen fa toogal dañoo umpale li ñuy liggéey ak ñoom xam ne amuñu guddi amuñu bëccëg ñu ngi ci loi yi ñu ngi ci loi constitutionnelle yi ñu ngi ci suivi évaluation politique publique yi nga xam ne président moom lay def. bu session ubbee ba bu muy tëj kenn du si julli sa kër te deux du matin jotul ñun xam nañ seen liggéey ak seen def benn dëkk bu ñuy wooyee république mënul dox te amul assemblée nationale benn dëkk ci àddina kon ñu leen di sant di leen rendre hommage ci liggéey bu rafet bi ngeen di def di leen ci ñaanal yàlla gàcce ngaal ñu ngi nuyu aussi directeur généraux yu fi nekk yëpp di ci ràññee suñu mag directeur général Pape directeur général de la waxoon naa jàng si mbedd léegi di nuyu nag sama goro Samba man dama am goro Kajoor Kajoor maa koy nuyu di ko gërëm di nuyu autorité administrative yi fi toog jël seen nuyoo di ko teg ci loxo sous-préfet di nuyu autorité religieuse yi di nuyu sëñ Moustapha Mbacké di nuyu sunu sëriñ sunu kilifa sunu mag sunu xarit sëñ Moustapha Sy di ko ñaanal yàlla yàlla ko yàlla yàggal te mu ànd ak wér kàddu yi moom dañu koy gàttal du kàddu yu gudd li Cheikh Kanté wax ñun ñu ñëw fi yëpp ci turu président de la république wala wóorulante ak président de la république andi ñu fi mënoon nañ ko wax parce que ñun ak ay melu ñu ñaar kenn la loolu nag moo tax président ne ma boo demee fii gannaaw boo nuyoo mbooloo mi ba pare na nga ma santal personnellement ay melu ñi santal ma ko ci yaakaar bi nga xam ne bu mu koy jël ci groupe parlementaire xamoon naa xam-xamam ci mbiru pétrole ak gaz parce que président seen euh, ànd du tey bokk nañ société nationale boobu ñu tuddee Petrosen liggéey liggéey ci yeneen anam mais daf ma woon yaakaar mu woon ne ay mbiru am na talent parlementaire bi nga xam ne wane ko pour fois mu dem assemblée nationale ñu jox ko groupe parlementaire majorité présidentielle bu ne xam ne le groupe parlementaire majorité présidentielle du groupe bu yomb groupe boo xam ne parti socialiste ñu ngi ci biir nekk parti bu am expérience yàgg xam li parlement ak assemblée nationale am tradition parlementaire groupe boo xam ne AFP Moustapha Niass yàgg nekk président assemblée nationale nekk fa ak ay député ku ne xam ne AFP amul cuuna ci seen biir ak yeneen parti yi ko wër LD e, ak ñeneen ñi may bañ lim te mu bari ñu toll ci lu mu tuuti tuuti cent vingt six députés nekk ci groupe boobu ñu dénk la ko pour la première fois nga yor ko ci yorin ak contexte bi mu ko yoree président nee na ay wéru gàcce nga la moom lay sant mais bu dul sax compétence professionnelle bi mu ko yoree mais engagement politique parce que groupe parlementaire nag engagement politique moo koy laal engagement politique boobu ak yërmande ak njaboot bi ñu leen uufee lu xew ci ñoom mu wax ko président de la mu taxaw ci nee na ay mbiru yàlla la koy bàyyi mu koy ñaanal yàlla li nga xam ne dégg na ko yàlla mu ci gis lenn lu nga xam ne aussi mu koy wutal di ko ànd ak fula ak fayda te kàddoom yi mu fi yëkkati wane na ko yàlla na ko yàlla jox te bu ko amee yàlla bu ko kenn ëppale ci wetu président la kàddu yooyu daal la président ne woon nañ koo wax fii ci kanamu Kajoor sant ko gërëm ko ñaanal ko yàlla sant nag ak ngërëm moom man ta moo tax mu ne ma fii ngay dem man maa lay yónni nga dem fa ñëw toog fa wax fa suma tur wax Kajoor ne kontaan naa ci seen doom wax leen ne sant naa ko gërëm naa ko rafet naa liggéeyam ak taxawaay bi suma bu waxee loolu nag daf naa waxal na ko député yëpp waxal na ko aussi assemblée nationale yi wax ngeen fi léegi lu am solo mooy Sénégal il faut que ñu nanoo assumer suñu responsabilité munoo woon ne da faral nit ba pare ah def par parloo di xuloo di xeex di xiroo di ŋaayoo boo àndee ak Macky Sall da ngay a roy si ay jikkoom. Macky Sall yar lañ ko xamee ak teggin. Macky Sall fula lañ ko xamee ak fayda. Macky liggéey lañ ko xam ak noppi ñun ñu ànd ak moom am nañu lu rey ci Macky waaye xiiroo ngaa yow sànnante ay baat dama leen loolu dañ ko war a weesu te nag àddina dafa jeex ba pare ñu ne dañuy gëm yàlla na ñoo xam ne nag turu jullit la ñu waaye du ñu def jëfi jullit turu jullit ak jëfi jullit nag du benn waaye boo jàngee alxuraan xam li yàlla wax ci alxuraan bi wax dëgg yàlla da war a noppalu doylu mm-hmm. xam ne yàlla fi nekk lu mu baaxal mu baax lu mu dëgëral mu dëgër lu mu su baax mm-hmm. ñun ngëm-ngëm boobu la ñu àndee ak président de la République moo tax ñu gëm ne aussi li muy def ci dëkk bi wax dëgg yàlla ku nekk sénégalais xam li ñu fi liggéey gis li mu yóbbu woon dëkk bi ak li mu ko andi war nga assumer sa responsabilité d'abord sa responsabilité en tant que citoyen sa responsabilité en tant que père de famille sa responsabilité en tant que responsable de quartier ñu nangoo wax ni ñu dëgg ñu xam li ñu dëgg dëkkay dëkk Sénégal wéy si jàmm fii bi ñuy jël nguur gi ñetti mbir moo ñu sonaloon mooy dund gu seer tey li ma wóor mooy 2011 bu ñu la wax nañ président boo xam ne dund gi day wàññeeku te ngeen votel ko ngeen d'accord ak mhm. te mu nekk loolu rek comme objectif principal de son mandat mhm. tey dund gi wax dëgg yàlla ku waxal yàlla waxal yonent bi waxal sa trayu bàmmeel xam ne dund gi na doon yéegee pombiteer bi yokk ceeb bi yokk suukar bi yokku tomate bi yokku diwlin bi yokku pendant sept ans loolu dara bougé wu fi kon xam ngeen ne Macky Sall ngeen. wallaahi. beneen priorité bi ñu amoon mooy inondation bu ñu ko fàq Dakar nekk sunu capital foo dem ndox mi gàttanu la dëkk ak yow noor ak nawet mais ku nekk xam na li ñuy liggéey ci inondation. bën ko démb dafa toog ak délégation Pikine di waxtaan ak ñoom ñu ne ko dañu bëgg terrain bu ñu def lycée. wax ko emplacement bi terrain bi nekk président de leen déedéet foofu li ma jàpp mooy da doon temps foofu mënul am lycée ñoo ngi ko mais président da ngaa yaa fa def liggéey bu mucc ayib boo xam ne foofa léegi gaa yaa ngi dëkkat am nañ espace boo xam ne war na mën a recevoir lycée dina dul def inondation loolu mooy dëgg ñaar yooyu rek boo ko liggéey ci dëkk yaakaar naa jar na ñu renouveler la sa mandat mais non seulement yemul foofu mais amul benn secteur laa wax yaa xam artisanat yaa xam formation professionnelle yaa xam pêche suma xarit ka le maire député de Kayar a ngi nii toog li ñu def ci ay euh, machines yi yaa xam sàmm bi parce que fii ma toog ak càmm daf ci am solo ak ak ak mbay xam ngeen li mu dugal ci ay machines ci ay semences certifiées ci ay engrais yu dugal yaa xam. courant bii nga xam ne dañu koy kamaj moo nekkoon troisième priorité bi nga xam ne bu ñuy ñëwoon ne président bu ñu réglé lii ñu def ko ñu def ko matul ñaari at courant baa ngi ne tey ci cent mégawatts lañ ko jël yóbbu ko ci 1000 mégawatts ba nag boole ci nag wàññi njëgu courant moo tax ma gëm ne bu dee Sénégal ngor gi ñu fiy wax ak jom ak bëgg sa bopp ak bëgg lu baax bi ñu fiy wax jógewu fi coxor coxalu ko. ku bëgg lu baax da nga war a ñëw jàppale président Macky Sall ànd ak moom mu am dëgg. waaw ah, waaw loolu mooy dëgg. Mhm. waxuma nag loolu ngeen di wax ay bourses rek loolu loolu ay ñamale la <laughs> waaye li am solo mooy réew bu ñu ko yoree di ko doxal xam réew mi xam ni ñuy yoree réew boo ko xoolee ne jàpp xam ne réew mii bu ci yàlla àndee dafay àgg fu mu jëm. Ah, te loolu am solo. Mhm. tey Banque mondiale Macky Sall jëndu leen fayu leen. FMI Macky Sall jëndu leen fayu leen. Mhm. te bu dugg internet xool rapport yi ñuy def ci Sénégal ci tolluwaayu économie ci politique am ak doxalinam mais li nga xam ne Sénégal lañ dem ci kanam. Mhm. waaye toog sa jàppaat naan ataay amoo xëy amoo ngol professionnel politique buñ la wàccee ci ministère amatoo foo jëm nga bu rajo yi ak télé yi bëgg a sonal nit dama ne dañu am fulaam fayda. wallaay xam ne avant tout Sénégal moo fi nekk. Mhm. te Sénégal la jàppale jàmm Sénégal la wut am na ñoo xam ne ñu leen jox ay te dugg ci dëkk bi ay yu nekkul ci Afrique sax ñoo ko jox parce que pétrole ak gaz bi fay ci nguuru président Macky moom la ñu bëlëg ñu koy wax ci kajo kajo kala kalaayoo. kalaayoo ko. ah kalaayoo ko dañu ko bëgg a kalaajo. <laughs> kalaayoo. kalaayoo waaw. kalaayoo lañ ko bëgg a ko d'accord <laughs> loolu na ko xam. xam nga ko bëggoon a def ay luubal ci pétrole ku def cos pétrogaz foofu mu woo assemblée nationale au conseil des collectivités territoriales aux sociétés civiles ubbi ko ba ku nekk sénégalais am xam-xam mu woo la ne la kaay toog ñuy waxtaane ci liy jëm ci pétrole ak gaz kooku kuy sàcc pétrole ak gaz du ko def déedéet man ngeen a dégg sàcc bu yëgee déedéet bu yëgle ne man damay sàcc damay sàcc ñëw fekk li may ma masam kon nañ leen am ne Macky Sall ñu voté ko mhm. mooy Macky Sall ñu voté ko mooy aar alalu Sénégal. Macky Sall ñu ko mooy protéger souveraineté Sénégal. loolu nag ku bëgg dëkk bi bëgg réew mi dañ ci war a nekk wàcc sax moo tax sëriñ ñu leen di ñaanal te boo leen ko ñaanee doo ci am benn yeddaay ñun ñu nekk ci wetu président Macky Sall xam nañu ko gis li muy liggéey suba ngoon guddi ak bëccëg mu ngi caay audience. di wax ak doomu doomu doomu askan bi di liggéey liggéey boo xam ne mënoon nañ ne mën nga ko bàyyi ci premier ministre wala sa directeur de cabinet mais loxo càmmoñ bi wóolul sax loxo ndeyjoor ndax bëgg Sénégal ak fonk bu mu ko fonk di ko liggéey ko andi ko fii dama jàppale ko ko ñaanal ko yàlla la dañu ko ñaanal jàppale ko duñ ci am benn yeddaat ñaanal Sénégal yàlla saxal fi jàmm amiin nawet bii tàmbali te ñu am ci jeexi jaar yàlla moom lu mu dugal loxo mu sax lu mu baaxal mu baax ñu ngi ko koy dégg di ko ñaan yàlla dafa ñu nawet jàmm amiin yaa rabbi barke amiin ñu àgg ci élection yi 24 février 2019 yàlla dafa ñu ci ndam kaami ñaan wàcce ko fi ci suñu ay wayjur yàlla ko yàlla nangu amiin yaa rabbi ay mbir yu ñu lay ci loolu di la ñaanal yàlla yàlla na sur leen fan. amiin lépp loo xam ne def ko fi ci ñaan. yàlla nañ ko bokk ñun ñëpp. amiin yaa rabbi bokkoog niwu Kajoor yëpp. amiin bokkoog mbokk yeeg xarit yeeg wala yëpp. amiin ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. maa ngi beral nuyoo nag suma mag suma xarit dem di ko sant di ko gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.